ñoom dañ topp Macky Sall bugg nag ay bouclier sénégalais gëmuñu leen Macky Sall gëmu leen li mel ni Serigne Mbacké Ndiaye lan lay def wër bureau ñeneen ñi chaque jour di ñaan xaalis di ñaan carburant lu mu lu mu ci loolu la ñuy wër léegi nag ñi nga xam ne ñoom fal Macky Sall ñooñu waxalatuñu Macky Sall ñoom ñi nga xamante ne seen pexe su antoon tey Macky Sall du nekk ci réew mi loolu mooy na yëfu naafeq ay naafeq lañu du ci raay lu mooy yëfu naafeq santuñu te la ñuy wax Abdoulaye lu ñu defal mais ñoom seen nil seen ñàkk xarañ moo tax daanu poste responsable c'est pas du hasard ñoom ñetti ñoo ñëpp ku na si ñoom moo yoroon dernière si li ko il a été le dernier premier ministre de Watt. Serigne Mbacké Ndiaye moo nekkoon dernier porte-parole Pape Samba Mboup moo dernier directeur de cabinet yeneen gouvernance yeneen euh, gouvernement yi succédé au moins ñooñu amoon nañ xarañ ba mën a jox Abdoulaye deuxième mandat ñoom ñoo ñoo njëkk trahir Abdoulaye trahir le peuple sénégalais